Mirne Roquina. ñaari xale gis nga. ah laaj naa la kenn ki booyu Ama Baldé bu tuddee Ama Baldé ah. kii di caatu Piol. Hmm. ku ne Modou Lo la. moom lay xeeñ. waaw. inde kenn du inde. waaw. waaw. war inde kenn du si waaye saako yi fekkiwul kenn. déedéet ko fekk waaye na mais mais mais foog ñu dem si saako yi xam nga foog ñu dem si saako yi. caatu piol. Mhm. day dem ah, dañuy dem yéen fi ñu toll ah, ah. dañuy wuute. ah caat dox na si kawam. dox na ko. Mhm. gëmu ko cokaas la. waaw cokaas la. daa woote lu mu gëmul. ñaxay manta baaraam. baaraam ñoom ñaar di nga jàpp ni lii est jeexal na combat bi. waaye ay buñ nee runkum daje. ay buñ nee runkum. ay njaay buñ nee runkum daje. waaye du yomb kenn ku nekk da xool sa morom dafa mel ni am na kenn ku nekk am nga looy sóor sa morom dañuy damyee ñoom ñaar. dañuy damyee. dañuy damyee. ndeysaan kan naxante naxante. naxante la. eh eh tey ña ngay dóorante. caat dóor na loxo baa ngay métti. Ama Malika Ama Malika. Ama Malika lu xew rukkum. Ama Malika caat caatu piol waaw caatu piol. lu xew lu xew lu xew. lu xew ndeysaan mooy yéen. bu ko atee si géew bi. ndeysaan boo waat nañ leen si géew ba. waat nañ leen. ba ngay jël Senghor loxo ba am na problème. épaule bi daa mel ni daa sumeeku am na problème. daa mel ni mbagg bi daa sumeeku. wala téere ba wàcc ci mbagg ma. est-ce que mbagg bi sumeekuwul. Ah, ah. arbitre bi ngi leen di woo. kaan leen arbitre bi. arbitre bi waaw bëgg naa dañoo bëre ba génn saako yi. dañoo bëre ba génn saako yi. ñii la bàyyi leen dem ci saaku yi saaku yi saaku yi fekkewul kenn a koy fekk am doomu Pikine lem boti gaawul doomu Pikine am ba léegi ay saan ñu ngi noonu ñoom ñaar léew ba léegi caatu piol caatu piol ama bu malika ama bu malika kenn ku nekk yaa ngi teg di xool sa morom si c'est que man damaa yaakaar ne saaku yi xanaa dañu am lu ñu fa denc ñoom dumal la déet non saaku am lu ñu fa denc dañuy suul si wetu saaku yi waaw xam naa loolu la nag ah, ah, loolu la saan ama bu malika sëy sëriñ ndeysaan bëre leen baa wax ak ñoom at baa ngay wax ak ñoom at baa ngay wax ak ñoom ama caat caatu piol bis bi bis bu rëy kenn du si bëgg a juum déedéet ku ne da see bëgg a juum lamb waxtaane la ba faw ndeysaan ku ne da see bëgg a waxtaan boppam xale yaa ngi noonu ñu ngi leetoo ba léegi eh. Eh, ama dugg waaye caatu piol daa hmm. da plié gis waaw Caadu Piol. Ousseyn. Ama bu Malika. am na lu nar. ñaar dañuy wuree fi ñu toll nii. dañuy damyee. ñu ngi léew ba léegi door na. na ko. baal na ko baal na ko tëru na ko. Ama tëru na ko Ama daan na ko. Ama daan na ko Ama daan na ko Ama daan na bi daan na caatu bi yoon doomu mbëbës bi daan na caatu bi yoon doomu montagne bi daan na caatu bi yoon waxoon naa la ko loxo ba sumbeeku na ko koy amoo bu Malika amoo Malika ak noonu ndeysaan nga ànd ak ko si baara ànd ak ko si baara ndeysaan jamana